jaajëfalaan nañ leen bu baax a baax suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal ñu ñëw rek ci jotaayu xibaar yi lee daal di àddu rek ginnaaw conférence de presse bi amoon démb foofee nag ca Walf Fadjri kile nag di doom ci Cheikh Sidi Lamine Niass di Cheikh Niass moom te jiite groupe bi sax daal di nay ñaawlu injustice bi nga xam ni rek jamono ji média yi ñu ngi koy daal di tekk ci seen ndodd di wax ni loolee teguñu ko fenn ndax bàyyeetuñ leen sax ñu liggéey ca anam yamu waree àdduna itam jëm rekk ci mbiru Pape njaay muy journaliste bi fa nekk te waxoon ay jëloon ay kàddu rek daal di koy teg ci magistrat bi leel ba ñu tax na rekk ba ñu jàpp ko yóbbu ko foofee nag ca kaso bu Sébikotane mu mel ni sax li nu mel nag ma ngay wax ni boobee ba tey nag waxuñu ci. benn yoon li ñu mel nag kon war nañ koo mën a xoolaat bu baax a baax mi ngi wax ni sax wax jooju rek doyul war nañ koo mën a topp bu baax te bu fekkee nag dara amagul boobu ba léegi nag ñun dinañ taxaw temb rek daal di koy xeexal ndax nag ci dimanche bi sax dinañ amal ab sitting foofee ca faj Walfadjri ngir ñawlu nag li ñu mel la